waaw ñu ngi waat fii rek ci seen émission kéemtaan euh, fii ci euh, Sénégal streaming TV ngeen man koo am ci seen YouTube euh, ngeen man ko am tamit ci sunu si sunu site web seen STV insha allah taala seen beneen émission insha allah fii ci kéemtaan ànd ceeg Aliou Khouma Thiam tey nag dafa ñëwaat ci beneen gan waaw tey ñu ngi fii Malika Montagne fii ci mbaaru Serigne Touba ñu ànd ceeg Alioune Badara Diop Aline Badara Diop Aline Badara Sadia tey lañ seet si insha allahu taala mu waxtaan ak moom ci yi nga xamante ni moom la yore nit ñi soxla ko lool allah euh, moom lañ ñëw seet si Serigne Alioune Diop Serigne Aline Badara Diop fii ci Malika Montagne mbaaru Serigne Touba insha allahu taala Serigne Alioune Diop nga nuyoo. ginnaaw maa ngi nuyu ñëpp ma ngi salaamaaleykum ma ngi ziar Senegal àdduna bi. di nuyu ñëpp di sant sama sëriñ di julli ci yonent bi di sant sama sëriñ di sant sama sëriñ di sant sama papa di nuyu sama papa sunu waa kër sunu njaboot parce que man laa yaskuru naas laa yaskuru laa ku dul sant nit doo sant yàlla maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax di sant ñëpp incha allahu rabbi macha allah sëriñ Aline Diop euh, ñu ngi koy nuyu moom tamit di ko ziar bu baax di ko jaajëfal bu baax ci tatagal bi. waaw ngeen gis rek ne sëriñ Aline Diop pare na incha allahu taala pour jox ñu bagage pare na pour wane bagage parce que bu ngeen xoolee table ji nga xamante ni ndeysaan iskay euh, tey daal ngeen bàyyi ñu xel bu baax a baax. te bu leen fàtte di abonné euh, ci seen seen YouTube bi di Sénégal streaming TV bu leen fàtte di abonné incha allahu taala kon Serigne Aliou Diop waa bagage yii nii ñu gis nga teg ci kaw table ji Euh, yow nan la naka la la affaire bi dikkee sëriñ bi. affaire bi mi ngi ma dikkee boobu maa ngi si daara ja doon jàng alxuraan daara yi sëriñ Amidou Mbacke moom laa doon sant léegi nii. Mhm. Euh, dama tëdd ba guddi. Mhm. ay 2 heures du matin 2011 la ma dikkee 2011 ma tëdd ba guddi euh, mu mu mu yee ma lu weex tàll la ne ma jugal nga jàpp julli. si mhm. laa jugee jàpp julli sa su bëgg mu ñëwaat ma wax ko sëñ bi. boobu bi may julli sax maa ngi lal euh, mooy contre plaque yooyu ñuy teg si ginnaaw lal yi. Hmm. moom laa daan jullee. Hmm. ma wax ko mu ne ma loolu jarul nga boo légee bu ko wax. Hmm. parce que boo ko waxee euh, dootoo ko gis gisatuma ko nag deux mille deux mille onze deux mille quinze daal l'affaire yi gën a accéléré digg ba si ak gën a ñëw léegi su ma tëddee ba guddi mu ne aaya alxuraan sàngam nàngam nàngam lay faj. su ma demaatee fii mu waxaat loolu. lagi affaire yi bim bi ma gënee euh, euh, dal mm-hmm. booba mujj gi dem na ba ma ñu York ma fu nu ma yóbbu ñu ne ah kii de mm-hmm. borom mi mbir la mm-hmm. kii moo ñu ëpp xam-xam wax dëgg si yàlla après si laa ñibbisee fii dama ñibbisee fii dama daan tëdd ba guddi jug dem dex suñu sam papa na ma yow uti heure bi fi fii looy génn kër gi ma dem ba sës ko Mm-hmm. waaye wax dëgg yàlla lépp sant suñu boroom la te lépp yàlla la mm-hmm. parce que Sénégal dafa xaw a doy waar mm-hmm. man kenn ku nekk li mu mën na ko liggéey man li ma mën laay liggéey li ma mënul duma ko liggéey soo ñëwee ma xool ko bu fekkee yow sunguf nga àndal dama naan la soraan sunguf la àndal mën naa laa faj mm-hmm. bu fekkee alxuraan la mm-hmm. mën la mën naa koo faj mm-hmm. bu fekkee ñaan la noonu kase wala ay sarax dama naan la bu fekkee mënuma ko dama naan la demal si hôpital yi waaye duma lekk sa ah. sa sa xaalis wala ah. dara déedéet jërëjëf jërëjëf seen naal yi seen naal yi bi nga ko dégloo bu baax euh, nee na mbir yi da ko feeñu ay gént la ko dikkee ci ay gént la jëlee faj faj bii nga xamante ni préparé na pour wan ñu si dara insha allahu taala waaye yow ba nga ko géntee ba pare rek da nga ñëw rek soobu ci mbir yi wala dafa am ñoo ci diisal ba pare soog a soobu si mbir yi sama sëriñ laa si njëkk a diisal mu ne ma comme que da lay feeñ te alxuraan lu baax la leneen ak leneen tamit lu sunguf ak yooyu lu baax la mm-hmm. ah wax dëgg yàlla man moom mu ne ma kon continuer ko lu la wax nga koy def. Mm-hmm. man noonu la demee. Mm-hmm. parce que day dem ba benn instant boo xamante ni damay tëdd ba gudd mu ne garab sàngam boo demee gas reen ba. Mm-hmm. nangam ak nangam lay faj gis nga ko moo tax man ma teg yii. dëgg la ci kàttanu yàlla. ci kàttanu yàlla kon euh, benn ko déggee bu baax euh, nee na jaan ñaan na ci ndigal ba bañ may ko ci ndigal. waaw parce que ba mu ko dalee dem na ci sëriñam. Euh, ne ko lii lii ak lii la ba waral tey mu teg yi nga xamante ni incha allah moom lay moom lay moom lay jëfandikoo waaw sëriñ Aliou Diop yow ñu ngi lay dégg bu baax a baax a baax ci yu ci yu ci yu kéemtaane nag. ñu ngi lay dégg bu baax ci yu kéemtaane bu ñu lay laaj rek mooy ne Serigne Aliou Diop dafa mel ni dafay jëflante ak ay mbër dafa mel ni affaire de mbër moom mhm. euh, qualifié na ci moom tamit euh, mën na ci lool Aliou Diop lan lan nga mën ci sëri si euh, affaire de mbër xam nga làmb dafa xaw a doy waar mhm. doy waar bi mooy mhm. tey jii nii mën nga dem ba si biir combat bi ñu jekku la mën nga dem jekku waaye dafa am nu ñuy wëlbatee làmb dafa am nu ñu koy def waaye tey jii nii nit bu bu la jekkoo ba nga xamante ni dañ koo jekku mhm. nee ko mu bàyyi ko mhm. waaye bu lekk xaalisam mhm. ñu ñu ñu ñu ñu indil ko si loo xamante ni yow sa say client day wàcc waaye lam moom wax dëgg yàlla suñu borom may na ma si bu baax a baax a baax a baax si kàttanu yàlla parce que dama si liggéey yoo xamante ni am na yoo xam ne du si buntu kër si kaw lay jaar wàcc am yoo xam ne si kaw estade lay jaar wàcc waaye wax dëgg yàlla man mu làmb suñu may na ma si lool incha allah macha allah sëñ Aliou Diop sëñ Aliou Diop lay dégg de te fi nga dëkkee nii yaakaar naa ne am na fi ndaw yoo xamante ni ñu ngi lay dégg te euh, ci loolu la ñuy soobu mu ci wàllu ci wàllu ci wàllu bëri ñaa ngi dégg de waaw ndax sëriñ Aliou Diop mbër ngi koy set si mbeur yi am na ñuy ñëw am na ñuy ñëw waaye wax dëgg yàlla mbër musu fee ñëw daanu yàlla suturaal na ma mbër musu fee ñëw daanu wax dëgg si yàlla hmm. waaye mbër yi moom am na ñoo ngi jëflante waaye doo toog di wax fii parce que lépp sutura la ah, waaw waaw waaw hmm. waaw nee na nee na sëriñ Aliou Diop nee na mbër yaa ngi koy seet si waaye bëggatoo wax na ne kenn ne diw mu ngi koy seeti sàmba mu ngi koy seeti wala demba waaye daal li wérte wóor mooy di ne mbër yaa koy seet mu ngi leen di defal bagage te ñoom tamit ñu ngi gis ñu ngi gis résultat ah enseigne naa leen ñu ngi gis résultat gis résultat bu baax ah. si kàttanu yàlla yow daal yow daal wóolu nga sa bopp ci wàllu ci wàllu ci ci wàllu làmb wàllu làmb waaw ah. comme yii may liggéey ni bii nii waaw bii boo paree du aw si buntu kër moom mooy butéel bu ruus bi moom pour mbër la waaw du ah. aw si buntu kër mm-hmm. du aw si buntu stade bi sax si mm-hmm. kaw lay jaar bii moom boo ko jëlee wax dëgg ku la jegee nga dóor ko mu daanu ku la jegee ah kon bëri war nañ koo gis de xabtal la lépp a ngi si biir. waaye kenn du ko liggéey bëccëg guddi rek. lépp guddi la waaw. moom mun laa tuddee guddi guddi. ah bi mooy guddi guddi guddi guddi moom bii moom boo ko jëlee pare bu la neexee boo ñëwee croiser le bras wala waaw croiser le <laughs> gis ngeen ko mbokk ñu ñuy seetaan si suñu site internet bi eh, suñu site eh, eh, YouTube wala suñu site web bi muy Sénégal streaming TV wala seen STV insha allahu taala kooku mooy Aliou Diop nee na mbër yi ma leen a jàppale lool gis ngeen buteel bu ruus ba nga xamante ni wane na ko nee na mbër mu ko gis rek mbër mu koy jëfandikoo insha allah bu la neexee boo demee ah balaa ngaa dem sa ya, bu la neexee waxal ni wii. waaw waxal ni waaw waaw. ah waxal ne ndam li moom tey sama ci man waaw loo wax fii. waaw loo wax fii rek. dëgg la. Ya? parce que na nekk lu wér na wóor moo tax la ya? am fu ma ko teg moo tax si kattanu yàlla macha allah mhm. nee na daal lépp lu mu wax rek euh, am na fu mu ko teg ba tax mhm. euh, ba tax mu wax ñu waaw Alioune Diop damay gis si taabal ji mhm. gis naa ci taabal ji bagage yu yéeme ma si cuqati benn rek waaw la wala pour lan la signal lii nii voilà man ma ko wërtu laal de. moom. <laughs> da di ah. nit bu fekkee dafa lekk lu bon. parce que dafa bëri Sénégal. Mhm. dafa lekk lu bon. da nga koy dafa am noo si liggéey bu ko lekkee si kàttan yàlla da koy wàcc. si mhm. sensé. dëgg la. bu fekkee nit dafa lekk lu bon bu fekkee tamit nit dañ koo def loo xamante ni dafa bon li yaram beeg lépp mhm. am na lu ñu siy liggéey bu soobee yàlla bu ko sangoo léppay wàcc incha allah yaram bi day oyof toll toll toll incha allah. mooy bi si nekkoon day deñ waaw. mooy tànk bi tànk bi ak lii moo. ànd ak sunguf soosu waaw ñoo ah, tànk bi ak sunguf si. bi ñoo ñoom lay ñoom lay boole. waaw ñoom mu lay boole. ñu sangoo ko juróom-ñaari fan. dafa am ay yeneen a yeneen yu muy àndal. ci kàttanu yàlla waaw. def seen naal li euh, dégg leen ko li ma ko laaj sànq mooy tànk ba bële waaye nee na li muy jëriñ mooy ki nga xamante ni dafa lekk lu bon euh, wóoluwut boppam incha allah bu ñëwee si moom seet si ko lépp lum lekk rek dana dana dëj Eh, yaakaar naa loolu Aliou Diop wax yaram bi dana dana lool te mhm. juróom-ñaari fan juróom la ko appal ci tànk boobule ak mhm. sunguf soosale mhm. ba léegi seen na ali ngi xaar bu baax a baax a baax ngir mën a jot euh, numéro seen euh, na ali boo ñëwee rek insha allah mbaaru Serigne Touba fii ci Malika Montagne ci station bu bees bi rek foo ko laajte rek wala nga woo ko ci numéro yi rek mhm. euh, ñaari minute du mat ñu jël si la ci mhm. yàlla waaw Seydina Ali ñuy continuer rek mhm. ah man dama si gis beneen beneen benn lu mel ni genre leket la wala leket gu ndaw wala boog bopp leket la waaye dañ ca samp ay ay donk moom mooy bii bii day tojtal Euh, koo xamante ni def na lu bon. Ah. wala koo xamante ni ferawal nan ko. Hmm. feraw bi mooy. Ah. koo xam day dox di dem yoonam rek. Hmm. parce que dañ lay liggéey liggéey boo xam ne da ngay gën di dem sa yoon. est-ce que moom mooy waaw boo ko xoojee lépp ñëw sangoo ko. wàcceel la ko incha allahu rabbi. Hmm. te léppay sa aaju yëppay faju te dina wér incha allah. ci ah. kàttanu yàlla. bii mooy tojtal. bii mooy tojtal man maa ko tuddee sama bopp nag. Euh, ferawal. ferawal maa ko tuddee ferawal mooy la. mooy koo xamante ni dafa ah. da dañ koy liggéey mm-hmm. liggéey boo xamante day génn di dem yoonam rek waaw kay léegi nag bu ko dafa am yeneen yu muy àndal bu ko mm-hmm. jëlee mm-hmm. insha allahu rabbi dina toog te dina deñ insha allah macha allah ki nga kon ki nga xamante ni toujours rek moom dem rek mooy nekk si xel bi waaw waaw xel bi dem rek moom daal dem rek même boo ko indee ci kër gi sax moom dem lay gis waaye loolu saafara baa ngi fii ci Seydina Ali nee na am na saafaraam képp koo xamante ni gis nga ko ci wala nga am mbokk mu ko dal bu eh, eh, bees bi rek eh, dana la dindil saafara saafara soosu nga xamante ni yaa ngi koy yaa ngi koy jàmbat mhm. jërëjëf Seydina Ali euh, ba léegi dañu continuer rek mhm. euh, gis nañ ci lu mhm. mel ni genre ndomba waaye nag dafa xonq am ay wëññu am ay wëññu ñuul muy lii nii nag moom bagage yi moom xam ndax man mën naa ko laalam déet ndomba bi waaw <laughs> waaw 70 puso lay àndal 70 puso moom lay àndal waaw moom lay ndomba gi di àndal moom lay àndal boo ko liggéey ba pare ba ëw ko doo dugg kaso hmm? lu lu la waay def tourné ci kaw mu tourné ci kawam. lu la nit jéemele lu bon mu tourné ci kawam. parce que li may wax nii tamit. damaa toog ak ak télé bi. Mhm. damaa toog yéen di waxta di wax ak yéen. Mhm. kon lépp loo xamante ni naa ko wax na nekk lu leer naa nañ waaye si kattanu yàlla waaw. cat ak lépp mu ngi si mhm. ku loolu waaye def si lu bon day tourné si kawam incha allahu bi même wàllu football ak lépp mi ngi si biir. macha allah kon ndomb gaa ngi noonu euh, lépp lu la waay def. soo dafay tourner ci boppam. Mhm, waaw ndomb gu yéeme la ah. seen naal yi kon ngeen seet seen naal mhm. waaye bu leen fàtte nag ne mbir yi ah fii lay xewee. Mhm. muy ci seen STV wala Sénégal streaming TV sëriñ bi euh, Diop dama bëgg rek nga xool ko nga wane ko tuuti rek moom mooy euh, mbir mi nga xamante ni moom la ñëpp di seetaan. si si YouTube bi wala suñu site bi muy seen STV. muy tiset bi ma sol incha allah bu leen fàtte abonné lépp rek foofu lay xewee. képp ko bëgg saafara rek bu seetaanee kéemtaan fii ci seen STV. incha allahu taala dana dana am saafara bu baax a baax ak seen naa Aline Diop. ah Seydina Alioune Diop borom. Ah, Malay montagne ah. Malika montagne Malika montagne. Mm-hmm. fii ci eh, jàkkaarloog station bi station bu bees bi numéro numéro téléphone am di 76. 534 45 73. wala 78 497 67 21. incha allahu taala ba léegi ñu continuer Seydina Ali waaw leket gi lan la. leket gi. waaw ah. dama siy liggéey wàllu football. Mm-hmm. wàllu football laa si laa siy liggéey. wàllu football ay nawetaan ak nawetaan ak Europe ak ah, fépp. Ah. lépp laa siy liggéey. dëgg la tur yi bu paree lépp fii laa koy dugal. Hmm. nii laa koy doxalee match bi. su ma neexee ni kii yee dugal kii. Ah. kii yee paas kii kii yee dugal. Ah. mat sa moom wax dëgg yàlla. déet yow kon dafa mel ni football moom. yàlla moom wax dëgg yàlla moom sunu borom may na ma si lool. Ah. ma ne la numéro bii dem leen numéro bii mooy paas numéro bii yee dugal. xam nga affaire damay dikk guddi rek. ni ma dikkee ma xëy suba wax leen noonu. ci hmm. kàttanu yàlla. numéro bi mooy paas numéro bi yee dugal. tëjee camp football wax dëgg yàlla sunu borom may na ma si. incha allahu rabbi macha allah kon leket gi wàllu football la mhm. waaw ndaw yi nga xamante ni ñoom seen xel yi dañuy def fii dañuy nekk fii di nekk euh, terrain euh, école football mhm. xam ne seen yitte yëpp pour dem football yi la waaye ñoom bu ñëwee ci yow nag yow ndax ma nga ci ñoom daal incha allahu rabbi ku fi ñëw incha allahu rabbi dama lay àppal loo xamante ni incha allahu rabbi boo demee dinga nga di nga football incha allah fu nit di dégg dina la fa dégg incha hmm. allah ci kàttanu yàlla parce que hmm. football liggéey ah, dafa am nu koy liggéeyee hmm. doo toog tey jii nii match jot na man mun man match yu may liggéey yëpp du ma dem stade parce que su ma demee stade du ma ko mën boo toogee bal bi aw na le yuuxoo yi doo ko mën da ngay toog fii di koy liggéey jàkkaaru stade bi nii waaw bu zóor nee lii nga fel ko bu kii defee nii nga fel bu naree lii nga aj sa loxo bal bi aju yooyu yëpp dama koy liggéey si kàttanu yàlla wala ah, jox kenn koo xam ne damay jàkkaarloo nii stade bi ah, lépp lu lii lii moo ma ko moo ma koy wan incha allah lépp bagage yi moo lay wan ne la kii mi ngi waaj dugal. waaw mi ngi waaj a dugal wala numéro bii mooy paas tey numéro bii ay dugal. yow man ngaa dem ba génnee ne numéro bii moo war a dugal bal bi. bëri na si fii ak ci temps de minute la koy dugal. nawetaan kay déggoo li ma la wax na fi. bëri na fi lool yàlla xam na ko ren ay tournoi nag la xale yi doon ñëw fii euh, am na ay juróom-ñaari coupe waaw juróom-ñaari coupe daal am naa. ah juróom-ñaari coupe yoo xamante ni yaa def ba ba ñoom ñu gañ. waaw waaw wax dëgg si yàlla juróom-ñaari coupe daal am naa ko xam nga ren football amut. waaw waaw waaw lépp dañ koy dañ koy def. dëgg la waaw looloo tax. Ah. incha allah macha allah kon euh, Seydina mu ngi noonu ak football. ak football bu ma ci doon nag moo xam biir réew mi la moo xam bitim réew la mhm. moo xam nawetaan la ak xale yi nga xamante ni seen mbir yëpp école football la pare pour dimbale seeni waajur ca Europe ah boo ñëwee ci Seydina Aline Diop dana la jàppale ci wàllu match yi nee na moom fu mu toog lay toog gis ba numéro yi dugal fu mu toog lay toog ne la bal bi ke dañ ko war a dañ dañ ko war a mbëkk mu dugg wala dañ ko war a centré mu dugg mhm. ah wala boog yàqal ko ndax mu dugal te fi mu toog lay toog dafa dafa euh, euh, nekk ci yow kon daal ko soxla rek insha allahu taala nga seet si ko fii ci Malika Montagne mbaaru Serigne Touba station bees bi ci kàttanu yàlla boo jokkoo moom rek dana la dana la dana la dimbale bu baax a baax a baax mhm. waaw Seydina Ali ba léegi ñu continuer mhm. Seydina Ali dama dama gis ci benn lekket bu zone lekket mhm. bii ma jàkkaarloo. Mhm. am na lu ci nekk ci biir lu mel ni mhm. genre weñ. wala loolu fii. waaw lii ngaqu tan la. tan ah? bu lekk ba yàbbi ko. ah, ah ngaqul mooy tan bu waaw ba génnee ko moo nekk nii. waaw weñ bi nag mooy yëkkati ko tuuti nit ñi ndax nit ñi mën a gis. fas la. feeru fas la ah, feer yu takk yu takkal fas yi. yu takkal fas la dëgg la moom la. ñoom ñaare ànd. liggéey euh, euh, euh, yëkkatil ma li signal yi mooy beneen bi gëqu kii boobu noonu tan bi ngaxutaan baa ngi nii. moo ah, moog loolu ñooy am nga da di lii. si boppam. c'est nit ñi dañoo xamut. Mhm. parce que tamit looy liggéey na nekk lu leer naññ. waaw nit boo xamante ni. Mhm. dafa dugg kaso. waaw bu soobee yàlla téeméeri xeer lay àndal. Mhm. ak benn. ku mun euh, ku mënta lekk xeer yooyu mënu koo tëj. am na ñoo fi liggéeyal ñu bari si kàttanu yàlla. koo xamante ni dafa dafa dafa def loo xamante ni dañ koo nar a yóbbu kaso. Hmm. incha allah bu demee toog ñu ba ko ci kàttanu yàlla waaw incha allah moo tax man ma indi ko fii. ah lii moom pour ñi nga xamante ni. Euh, def nañ euh, jiya. waaw kay wala wala boog ñu tuumaal la. tuumaal la waaw wala leneen. Mhm. ba war laa yóbbu kaso. waaw lii moom ci ci nga koy dimbale. ci laa koy dimbale incha allah waaw kenn du ko yóbbu. moom da koy lu mu koy def moom da koy takk wala lan ngay def. dafa am lu muy àndal. waaw dégg mën la wax dafa am lu muy àndal. waaw ak téeméeri xeer ak. ak téeméeri xeer ak benn. waaw moom lay àndal. waaw téeméer xëy na dañ koy dafa am leneen lu muy àndal ñu gas ko suul waaw buñ ko liggéeyee dañ koy gas suul ku mënta lekk xeer yooyu hmm. munu munu koo tëj kenn du wax si yow dara kenn du ah seen naa ni yow mbaa bu la gars yi dégg du ñëw ah incha allah ah. ku ñëw de incha allah sa aaji na parce que lu ma waxit fii ah. euh, nekkuma di wax dëgg yàlla lu ma waxit fii hmm. lu ma lu fu ma ko teg dafa leer naañ ah. incha allah incha allahu taala kon daal euh, li ci li ci biir euh, kopp bu zone bi pour prison la hmm. ñi nga xamante ni ragal nañ seen bopp tuumaan nañ leen hmm. wala boog def nañ jéyee war a dem kaso ñu ñu wóoluwaat di pour bañ a dem kaso seen naa leen jóg ne la boo ñëwee ah moom dana la dimbale ba doo fa dem te si lii rek la koy teg insha allahu taala si kàttanu yàlla kon daal Seydina Ali yow daal ah man yow sa bagage si kaw table yi man jaaxal na ma de waa Seydina Ali sunguf yële nag ngan la sunguf yële ñaari yële sunguf bii waaw bii ñu ngi koy liggéeyee juróom-ñeent paxu wel pel wel xam naa doo ko xam wel paxu wel wel laa xam waaw tey jii nii ngay ngay place nga jël ko am leen lu muy àndal nga dem Mm-hmm. diwoo ko fa si kàttanu yàlla koo fay xëccal kooku dina fa jógee nga nekk fa. wàllu place incha allah. ci wàllu place. wàllu place waaw. mooy ban mooy ban bii nii. mooy sunguf sële sunguf bi waaw la dëgg beneen sunguf bi nag moom lan bii pour bayre la. ah ko bayre la. pour bayre la dafa ànd ak euh, daqaar bu laxasoo ko euh, guy. guy boo koy jënd yàpp bëy nga koy jënde am na ak leneen loo koy jënde loolu tamit euh, pour bayra la bayra boo bayra dafa bëri façon. waaw da ngay def bayra. Mhm. nit ñi topp la. dëgg la dafa ngay def bayra boo xamante ni. Euh, yow yaay topp nit ñi. waaw li tax man la yaay topp nit ñi. tey ñu foo génn. nit ñi wax. Mhm. te bayra balaa nga ko def il faut nga aar sa yaram ba pare. dëgg la soo koo def. waaw incha allahu rabbi. Mhm. wax dëgg yàlla moom lépp lu mu fi wax rek. waaw incha am na fu ma ko teg. ci kàttanu yàlla. seen Alioune daal nee leen jàppale na lépp lu mu fi wax rek. fu wóor la ko teg. bu wérta wóor la ko teg kon ñaari sunguf yële ngeen di gis benn bi nga bëgg a place lool am ko lu ci sonal lool nga mhm. fexe nag booy ñëw ci moom rek yow place bu yaa fay toog yaa fay toog allah beneen bi nag mooy euh, bii ñi moom mhm. pour bayre la mhm. nee na nag bayre gi dafa am lu mu àndal parce que bayre nekku ne ku ñu soxla bayre rek ñëw ñu defal la bayre waaye bayre gii mu yor moom dafa am lu mu àndal waaw kon sunguf yaa nekk noonu euh, am na beneen bu may gis seen naal yi reen yi may gis am na leneen loo xamante ni comme genre ay doom la àndal li li la la seen bu fekkee bii la. waaw mooy bii nii lu mel ni genre ay doom ni waaw waaw lii dama siy liggéey jigéen joo xamante ni. Mhm. dafa toog lu yàgg. toog lu yàgg maanaam. dafa toog lu yàgg. Mhm. lu yàgg mooy koo xamante ni. Mhm. dafa mënta am doom. mooy toog lu moom lan naan ñun toog lu yàgg. dëgg la léegi lii dama siy liggéey. dafa am leneen lu muy àndal. léegi bu fekkee da koy def nii. ku góor ki. da nga koy kepparti nii. des na yu ndaw si biir. ku góor ki day seex benn. ku jigéen ki seex benn 14 doom lay doon bu ngeen demee ba bay bay ku góor ki waaj a yëg boppam. Mm-hmm. da koy yàbbi si kaw dënnu ku ku góor ki. ku jigéen ki doom ko ci kaw dënnu. waaw kii day seex bii kii seex bii. boobu ku góor ki moo koy yàbbi si dënnam ku jigéen bi day wan na basam. Mm-hmm. incha allahu rabbi balaa mat 2 euh, mois nga gis résultat. ci kàttanu yàlla am na leneen lu muy àndal nag. dëgg dëgg ah. waaw dëgg seen STV daal fii daal fii daal fii daal fii lay mbir yi xewee. ah wala Sénégal streaming TV ngeen man ko am ci YouTube bi. Mhm. ngeen mën ko am ci suñu site web bi ak émission Kéemtaan. Mhm. nee na daal bépp jigéen boo xamante ni taxaw na lool. Mhm. ah ëmb te ko. ah ah boo ñëwee ci moom. dana la jox ay doom yoo xamante ni ku góor gi day sex. ku jigéen gi sex. léegi nag ku góor gi nag day dem ba. yëg boppam yëg boppam ah jël jël doom bi daal di ko euh, sànni ci yàb bi ci dënnu euh, ku jigéen ki ku jigéen ki moom day war na bësam su ko defee rek insha allah nee na deux mois la la appal résultat daal di ah seet naa li seet naa li kon daal képp koo xamante ni euh, mbir yooyu dal na la nga taxaw rek yàlla dogal na nga taxaw am doom tëla insha allah boo ñëwee seet naa li fii ci mbaaru Serigne Touba Malika mm-hmm. Montagne fii mm-hmm. jàkkaarloog station bi mm-hmm. numéro téléphone am di 76 534 45 73 wala 78 18 497 67 21 so ñëwee rek tawatal ko sa soxla moom dana la si jàppale bu baax a baax a baax ci kattanu mm-hmm. waaw Seydina Ali ba léegi rek dañuy continuer mm-hmm. Seydina Ali euh, gis nañ fi lu mat 5 yu ndaw 5 mm-hmm. butéel ndax butéel yëpp ñoo bokk li ñuy liggéey wala butéel yi butéel lan la bokkuñu lu ñu liggéey bii ah. pour wàllu cat la mm, mooy yëkkati ko tuuti bii pour wàllu chat ah, la pour mi pour wàllu cat pour wàllu cat la waaw parce que daf ah. lay nu la mën nga ko sangu mu duggaat la. Hmm. waaye yii dafa am lu muy àndal. Ah. li muy àndal mooy. Hmm. ànd ak catul euh, mooy dëggu kàdd. dëggu ak bu sump. Hmm. ak catal ngeer. ak catal euh, illeer bi ñuy bayee nii. bi ñuy bayee nii. cat li waaw moom la gopp bi rek. Ah. moom la naan illeer ñun. cat li ngay dagg. ak catal euh, kii nu mu sax catal kii waay. Sidem Sidem Sidem waaw. Mhm. moom lay àndal. Mhm. ak euh, ak catal kii. Euh, sump wax naa ko. ba mat euh, juróom-ñaari yooyu la. juróom-ñaari léegi si kàttanu yàlla moom nga fiy def. Mhm. sangoo ko juróom-ñaari fan. boo paree cat yooyu yëpp ngay dindi. naa la jox benn doom nga boole kook moom incha allah cat dootu la toog cat dootu la topp. incha allah ah kon daal il faut nga boole ko nga boole juróom-ñaari cat. waaw dégg nga dégg nga si naan fi waxee. Mhm. parce que cat nee juróom-ñaari cat yooyu noonu. Mhm. ngay boole mu jox la benn ndomba. Mhm. incha allah boo ko takkee cat gi dañu waaw cat lañ bëgg nga laal ñu si tuuti rek. xam nga cat naka la mën a def si nit cat. cat mën nga déggoo li ma la wax mën nga ah. sangu léegi nii. Ah. dugg génn dem. Mm-hmm. mu toppaat la. Mm-hmm. parce que bii da ngay sangu. Ah. takk. Mm-hmm. parce que dafa bëri façon nag man li ma siy liggéey. Ah. am na boo xamante ni. Hmm. ngeer ngay wut def ko téeñ sa bopp. Hmm. teg ko sutti mu wàcc. Hmm. parce que euh, kenn ku nekk sa rawaan li ma la euh, li ma koy xoolee ak li ma li ma naan li ma naan li may wax ma liggéeyee ko. bu ñëwee na ma kii bii moo koy faj ma jël ko bu fekkee bii koy faj ma jël ko. yaa ngi dégg loolu loolu la noonu la may dikkee nag mm-hmm. wax dëgg si yàlla waaye nekkul loo xamante ni tey jii dit dee ñëw rek parce que Sénégal dafa xaw a doy waat loo fi wax it mm-hmm. na nekk lu leer waa na nekk lu leer nañ mm-hmm. si kàttanu yàlla waaye cat moom ku fi ñëw moom nga sangu li nekkoon sa yaram dëñu ñëwaatal fii incha allah incha allahu taala kon seen naa li dégg ngeen ko nee na daal wàllu cat moom tamit euh, bokk na ci bagage yi mu fort lool mm-hmm. euh, képp koo xamante ni yaram bi diis na lool nga yaakaar ne cat la mm-hmm. moom boo dikkee ci moom rek dana la jox ay tegtal incha allah boo koy jëfandikoo mm-hmm. boo demee gisoo résultat dikkal ne ko gisuma résultat waaw moom daal moom résultat lay liggéey parce que ah. nee lépp loo wax fii da nga ko waxaat da nga ko waxaat moom loolu lay sóoraale parce que nit ah. war na sóoraale ñetti fan yi parce que ñun dañ fiy jaar rek jàll. dëgg la léegi suñuy set ñëw. kon lépp looy liggéey. Ah. na nekk lu leer nañ. dëgg la lépp looy liggéey. Ah. bul nax nit parce boo naxee nit ki. Ah. Eh, naxoo ko da nga koo dencal te yow ma xiyaam di ko fay. parce que ku du sóoraale ñetti fan yu bàmmeel. Mm-hmm. ñetti fan yu bàmmeel man ku fi ñëw loolu wax. Mm-hmm. man damay sóoraale ñetti fan yu bàmmeel. nit damay wax sarax. Mm-hmm. ma ne ko génnee ko sax bu fa ma génne ko foto ko envoyé ko mu ne ma dee ma envoyé ko. Mhm. ba tey jii si mujj allah. incha allah ci kattanu yàlla. dégg nga de moom daal nee na euh, boo bëggee lam-laami sama moo lay génneel sarax bi envoyé la ko. Mhm. ngir lan ngir dëggu rek. parce que day sóoraale ñetti fan yi bàmmeel mhm. ah. seen naa li euh, bii daal incha allahu taala xam naa ne gars yi dina seet si parce que léegi la yaram yi diis lool. ah beneen yeneen butéel yi des nag seen naa li. bii moom la gi la. waaw kay. bii nii. moom la naan xay. xay xay laa ko liggéeyee. Ah. xay la dafa am nag leneen lu muy àndal. dëgg la tey jii nii. Hmm. moom yëpp ci cal lay dox. waaw boo ko jëlee ubbi ko. Hmm. bu am na euh, benn garab. Euh, bu naan naan hmm. dóob. naan dóob moom nga koy booleel. incha allah sangoo ko. dëgg boo ko sangoo. li nekkoon sa yaram incha allah lépp lépp day deñ incha allah li nekk sa yaram lépp si kàttanu yàlla. moom moom butéel bi moom butéel bii nii. si hmm. kàttanu yàlla waaw. li si nekk lépp day deñ incha allah si kàttanu yàlla. incha allahu taala butéel yaa ngi noonu lépp day dox ci wàllu cat. moom tamit boo ko sangoowee lépp lu nekkoon ci yow. Hmm. Euh, dafay deñ am na yeneen ñaari butéel yu ñuy gisaat yu des yàlla. bii nii. waaw dafa maa ko liggéeyee si reenuk sump. reenu sump reenu sump. dëgg moom day dox si bayre boo ah. gën a gaaw nag moom. wis nit ñi ñëw wis nit ñi ñëw la. maa ko tuddee wis. wis nit ñi ñëw moom laa wis nit ñi ñëw. waaw parce que li muy gàtt nii bi la ma parce que maa ngi ko liggéeyee. Ah. sump ba laxasoog caxat. caxat waaw sump bu la caxat dafa am nu ñu koy jënde nga am nu ñu koy liggéeyee hmm. parce que man guddi rek laa boo tëddee ba guddee ah. demal def nangam nangam ma demee jël def si kàttanu yàlla dama si gis résultat incha allah musuma lii loo xamante ni hmm. gisuma ko wax dëgg yàlla te nit musu fee ñëw ah. ne ma ah sëñ bi la nga waxoon de gisuma ko yow wax dëgg hmm. yàlla mustaam waaw kon wis nit ñi ñëw a ngi noonu muy bayre bu saf sàpp moom moo ko tuddee wis nit ñi ñëw ah ci kàttanu yàlla nee na eh, nit ñëpp daal di eh, daal di ñëw kon daal eh, bayra gaa ngi noonu beneen butéel bi la lan la sëriñ bi. bii nii. Mhm. bii nii pour euh, xale boo xam ne day tiit guddi. day tiit guddi dafa dafa bëri fii wala ku jinne jàpp. Mhm. wala wala saytaane. yooyu moom bii moom moom laay liggéeyee. ci mhm. kàttanu yàlla boo koy raay muy naan nemm. lu garaaw garaaw boo ko raay mu ne neem nga gis xale xam ne mën na tiit nag dañuy tiit dañuy tiit dañuy tiit bu baax tiit di yooxu damay toog fii wala ma tëdd ba guddi nit ñëw na ma lii waaye boo ko wax dëgg yàlla moom boo xëyee suba danaan ma day ko indi bu wax te fan yi ma fan yi ngi def lu nekk yàlla ya xam na xam nga dañuy nit dafa am noo xamante il faut nga def ko mhm. li ngay def mhm. dafa doy da ngay dem ñi naan la nga dem ñi naan la nit ki koy ba pare rawaanam lan la àndal mm-hmm. nga soog koo faj ah. waaye doo tëb tëb rek ñëw mm-hmm. toog mm-hmm. ñëw rek yëkkati jox man loolu maanaam da ngay consulté nit ki ba pare waaw lan moo ko daal waaw koy adat ko xar rawaanam yéen ñaata siifur la yooyu yëpp dama koy xool ah. ci yàlla hmm? bala nga cee dugg daal yow da nga xool kii ban qualité la waa koy ak fan laa ko mën a jaar a ak lu ah, wax ak la la wax waaw koy dëgg la incha allah ah kun daal yow il faut jot ndigal sa gaa yi waaw koy waaw iskay incha allah kon euh, budeel bu euh, verte baa ngi noonu mooy xale yi nga xamante ni dañuy faral di tiit guddi lool mhm. di yooxu léegi la nga gis ci xale yoo xam ne dañuy yooxu tiit ah, ah, léegi léegi ñu tafu seen yaay te doo xam lan la mhm. nee boo ñëwee ci moom rek am na saafara bu baax a baax a baax loolu yëpp dana ko bàyyi euh, seen na nag mu ngi fii ci Malika Montagne station bu bees bi nii rek mbaaru Serigne Touba ci kàttanu yàlla bu ngeen ñëwee rek wax seen soxla incha allahu a ngi ci sunu chaîne YouTube ngeen mën ko am ci sunu site web bu leen ko fàttee abonné insha allahu taala da ngeen gis yu kéemtaan yoo xamante Seydina Ali dana koy wax waaye da ngeen gis yu kéemtaan yoo xamante ni Seydina Ali mu ngi koy wane waaw Seydina Ali bitéelu Evian lañ gis tamit ci kaw mooy bitéel bële bitéel bi waaw ko fi indi biiram di mit mu koy jàmbat muy tourné fu nekk mhm. bu si naanee diw mhm. mooy jugal dem boppam mooy mooy demal boppam ah bopp bi métti wala bopp ak bii rek lépp ah incha allahu lu nga ko indi jàppoo indi. boo ko joxee mu naan mu raay biiram. waaw fekkee boppam la mu raay si mooy jóg demal boppam. ci kàttanu yàlla. ko bu bi nga xamante ni seen alim téye na ko nee na ko nee na képp koo xamante ni bopp bi métti daf ko sonal lool wala ki bi métti daf ko sonal lool. Hmm. ci kàttanu yàlla bu ngeen ko seetsee dana ko am am na ci saafara bu baax a baax a baax muy bitel bi nga xamante ni moo koy rek bopp bi métti wala ah, biir bi métti góor wala jigéen. ñoom comme mënti doon na nekk góor wala jigéen insha allah ah, insha allah góor la góor la wala muy jigéen mm-hmm. bu ngeen seetee seedna ali si bopp bi métti wala biir bi métti dana leen si dimbale bu baax a baax a baax euh, si kàttanu yàlla mm-hmm. seedna ali euh, xam naa ne fu ñu ñëw ak yow rek mm-hmm. euh, mooy seedna ali xamante ni feer bi nga xamante ni moom tamit doy na waar léegoo nga dugg ci école yi nga gis xale ni ñuy def di daanu sañ sa ba jekk balaa ne ngalab la ci xale daanu muy rab monsieur naali man ci rap xam nga rab ñii la yab jigéen joo xamante ni. Mhm. dafay bàyyi yaramam. Mhm. jigéen joo xamante ni. Mhm. bàyyi bopp neen. jigéen joo xamante ni. dafa bëri euh, dafa amut ginnaaw daal. dafa bari ay ay loo xamante ni fu mu toll nii di koy tudd. loolu noonu lay duggee parce que mën na la duggee nii euh, sa biir jëmale ko sa kaw. mën na jóge sa kaw wàcc sa biir. waaye incha allahu rabbi ku mu fi dugg. boo ñëwee incha allahu rabbi boo ñëwee di nga jug demal sa bopp ci kàttanu yàlla. képp koo xamante ni yaakaar nga ne rab moo la jàpp wala yeneen mbir yooyu nga xamante dafay laxos nit léegi la ngay daanu raj ah wala di wax wax yoo xamante ni maara detaale boo ñëwee ci seet naal yi dana la si jàppale bu baax a baax surtout xale jigéen yi nga xamante ni toujours rek xew na lool muy wàllu daanu yi nga xamante ni njortu nga ne mun na am mu nekk rab bu nga ñëwee seet si seet dana leen ko dana leen si jàppale waaye seet naal yi ndax bagage am yomb na ndax ñëw rek jot ci moom yomb na xam nga da day liggéey si boppam mm-hmm. dafa métti parce que da ngay tëdd ba guddi mhm. nga jug mhm. deux heures du matin mhm. wala pensaay doo jaar sax si nelaw man pe di nga damaa dem ba manqué ay nelaw parce que mënatuma ko fu ma fu guddi gi li may nelaw bëriwut parce que nit bu ñëwee ah. nga ne ko insha allahu rabbi di dina baax kon bul tëdd rek man damay jug fekk gisu ko man du ma am jàmm man noonu laay liggéeyee fekk gisu ko rek du ma du am jàmm parce que keroog maa ngi ko dikkee ne ma ko. Mm. Euh, sëñ Muntaxa mm. moom la ma dikke mm. euh, mu yor euh, mu ne kenn ku nekk. na dem buntu kër bu nekk. mooy kër gu nekk daal. na ut juróom-ñaari ngeer ak juróom-ñaari ayatul kursi. Mm-hmm. mu mu mu sànge ko ña ña dëkk sa kër ga. yàlla xam ne noonu la ma dikkee woon. billaahi wallaahi wa taala noonu la ma dikkee woon. Mm-hmm. xëy na nag euh, waxaguma ko woon. Hmm. parce que yàggut. moo tax instant yi toll comme que ñëw ngeen. Ah. dinaa leen ko wax. incha allah ngeen jàllale ko. Hmm. incha allahu rabbi. Ah, mooy mooy mooy euh, mu ne la. mooy comme feebar bi. ñuy wax. moom juróom-ñaar ci gént waaw dama ko dikk comme affaire ni muy ñëwee noonu rek noonu la ñëw mhm. ne ma juróom-ñaari ngeer mhm. juróom-ñaari ayatul kursi mhm. takku ngeer daal takku ngeer bu nekk day ànd ak benn waaw kër gu nekk nan ko def ñu ñu bind ko sange leen si ngeer mi ak ak ak ak saafara si incha allah concernant euh, ali euh, nee na euh, lii lu mu la loo xamante ni jaar na ci moom mu ngi jiyee ko ci gu ni wax na ko mhm. nee na daal képp ku ko man juróom-ñaari ngeer mhm. ak juróom-ñaari ayatu kursi mhm. nga boole ko sangee ko xale yi wala sangee ko ña nekk ci nit ñi su ko rek allah bi nga xamante ni sonal na nit ñi lol. lëmbee na jamono lool yàlla dana la ci muccal mu ngi ko jël si ngént nag nee mu ngi koy wax mu ngi koy mu ngi koy STV di Senegal streaming TV ngeen xamante ni mën ngeen ko am ci YouTube bi mën ngeen ko am ci web insha allahu taala kon seet Seydina Ali ba léegi rek euh, mhm. dañuy continuer mhm. ne Seydina Ali moom ay mbiram maanaam boo jokkee ak moom mhm. moo xam bitim réew la moo xam yow mu nekk ci réew mi daf lay li saxaaral wala moom day day gërgër wax la xam nga da man euh, nit ki balaa moo ñëw balaa mu balaa ma ko liggéeyal dama koy xool man nit day ñëw ma ne mu ne ma sëñ ma ne ko déedéet il faut ma listixaar xool sa rawaan ba xam bu fekkee sunguf la ma ànd saak yow bu fekkee reen la mm. ma ànd mm. bu fekkee ñaan la noon kase mm. ma ànd saak yow bu fekkee alxuraan la ma ànd saak yow waaye doo tëb tëb rek ma nga ñëw rek man ma yëkkati jox la déedéet man moom noonu laay dama naan la baal ba ma xool ko ba pare incha allah parce que boo ñëwee rek yëkkati mën naa laa ñëw tey nga ñëw rek ma yëkkati sunguf jox la nekkatoo nekkul sa yëf da lay gën a taj mm. mën ngaa ñëw ma yëkkati biteel jox la. Mm. nekkut sa yëf da eh, da lay tëj. Mm. wala mën ngaa ñëw ma ma yëkkati leneen jox la nekkatoo sarax rek nga war a def am ñoo xamante ne sarax leen am ñoo xamante ne mën naa da ngay dem sa waajur ñu nga wut nga wut benn kaas def si ndox. nit ñëw na ba taay man la demal ñu ñaanal la. ban ko ñaanee gis nga ko danoo danoo danoo danoo avancé. wax dëgg si yàlla si kàttanu yàlla incha allah. incha allahu taala wax na lu am euh, importance moo ne bu la seetee gis ne euh, say waajur ñoo la war a ñaanal. Mhm. danaan la dellul say waajur ñu ñaanal la. waaw su dee nag leneen la la war a faj danaan la lii moo la war a faj yow. Mhm. waaw bu dee nag waajur yi la dalay delloo si waajur yi lu am importance nga war de sëriñ mhm. waaw ah? wax dëgg si yàlla man moom noonu laay def. te ah? la may dikkee lu ma sant rek. Ah? man loolu laay def man sama gars yi lu ma sant rek. noonu laay def incha allah. incha allahu taala seen naa Alioune Diop ngeen mën koo fekk damay dikkee sax ah. Ah, noo xamante ni. Ah. danaan ma gan dina ñëw. lii mooy fayam day ñëw rek ma teg ko nii. est-ce que mu ñëw rek ma ne ko ma xoolal ko ba pare ne ko jël bii nga yóbbu. bu demee sama téléphone a ngi nii dégg bu mu wan la lii yëpp euh, vocal yi nu ma vocal ak yëpp. ñuy sant bu baax a baax a baax parce que man moo wax dëgg si àlla mm-hmm. lépp moom sunu boroom la mm-hmm. parce que sunu boroom moom moo mën moo mën lépp man moom wax dëgg yàlla li ma man laay liggéey. Hmm. li ma mënu duma ko liggéey. wax dëgg si yàlla incha allah. incha allah moom daal li man lay def. lu mënul du ko def kon daal seen Ali euh, euh, bitim réew ñu ngi lay dégg. Sénégal fii nga nekk ñu ngi lay dégg incha allahu taala nee na daal tëjulul kenn buntam su ngeen ñëwee daal lépp loo xamante ni man na ko dana ko def lépp lu mënul nga wax ko mu ne la ah lii kat mënuma ko. Hmm. loolu lay Seydina Ali di liggéeyee ku ko soxla na mu ngi fii euh, Kër Massar ci Malika Montagne fii ci Mbaaru Serigne Touba. Hmm. dend ak station bu bees bii rek. Hmm. su ngeen ko soxlaa rek ngeen woo ci numéro yi muy 76 534 45 73. 78 497 67 21 ko woowee rek incha allah dina leen yombalal euh, mbir yi dina leen yombal jokkoo bi baax a baax a baax ci kàttanu yàlla waa seen naa waxtu waag ñuy xoj bu baax a baax a baax mm-hmm. benn point rek la dikk ak mm-hmm. euh, ci mbir mi nga xamante ni sonal na askan wi lool mm-hmm. euh, muy covid 19 mbir mi nga xamante ni wax dëgg yàlla xew na ci jamono bu baax a baax a baax léegi nit ñi daanaka génn amatul ah, gis nga foo wéeri nit ñaa ngi takk ay masque ah, so ah, allah di feebar yàlla génne ko fi hmm. ci nam gën a gaawee ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa ñu ngi lay ñaan rek ba xam ndax yow feebar bi ndax Lum eh, naal yi lu mu ci xam wala lan lay nyepu askan wi man li leen dénk mooy hmm. ñëpp nan takk masque hmm. tamit euh, sunu borom moo ko wàcce amna am na loo xamante ni comme kilifa yu mag yi fi tari kilifa yi fi euh, gis nga ko def bu affaire bu affaire yi commencé accéléré. ñoom li ñuy wax mooy. lii bi sax ziyaar yi sax. nañ ko arrêté. waaye lépp loo gis rek. sunu boroom la. parce que wax dëgg yàlla la xa daxla naa insaan fii kabadin yàlla dañoo bind si coono kon nan ko nangu ndogal la sunu borom moo ko moom moo ko wàcce wax dëgg yàlla man daal li may wax mooy Euh, gaa yi fi ñu leen war a yamloo mm. nan fa yam mm. bu kenn def loo xamante ni mm. du noonu wax dëgg si yàlla waaye lépp loo xamante ni daal nan ñaan suñu borom suñu borom jële ko fi um ko moo ko indi insha allah parce que bërki démb maa ngi guddi gi maa ngi gis euh, beneen loo xamante ni mi ngi mi ngi feeñ di ñëw beneen feebar maa ngi koy gis si guddi mu ngi feeñ di ñëw muy feeñ di ñëw budul covid 19 budul covid 19 te loolu il faut ñu teel see jug ci kattanu yàlla parce que boobu moom xale la gën a yab ah wa seen laaj loolu moom doo fexe mu allah lépp dinañ ah, si taxaw insha allah pour mu bañ egsi yàlla waaw si kàttan yàlla nag moom war nga allah rabbi yàlla nañ ci yàlla fanqal amiin amiin bu baax a baax a baax a baax amiin amiin waaw a si disponibilité bi wax dëgg yàlla yombalal nga ñu ko bu baax a baax a baax mhm. ah, comme li mu wax rek eh, la a a a ne garaawul garaawul nañ di jëfandikoo rek ñi ni kilifa yi ñu ñu mhm. allah te di ñaan nag yàlla teggil ñu ko bu baax a a nga xamanteni sonal nañu lool hmm. waaye mu ne nag euh, am benn beneen feebar buy ñëw hmm. waaye na ci kàttanu yàlla dañ ci fexe moom ci lu mën ci ba ba ba ba ba ba du yegsi wala ah, waaw waaw allah <laughs> allah taala kon seen naa leen jërëjëf mu ngi fi rek Malika Montagne fii ci euh, euh, station bi nii rek ci mbaaru Serigne Touba hmm. ko ko soxla rek allah boo dana la yombal dana la yombal mbir waaw lan ngay dénk wala boog lan ngay ñaax ñi nga xamante ni ñu ngi ñu ngi ci suñu site internet ak ñi nga xamante ñu ngi Euh, seen STV euh, la ñuy la ñuy dénk. man li ma leen dénk mooy. Mm-hmm. wax dëgg si yàlla seen lii bi macha baax na wax dëgg yàlla macha allah te lépp loo ngi wax dëgg yàlla amu leen caaxaan lu ngeen wax da ngeen koy def lu ngeen waxut du ngeen ko def parce que wax dëgg yàlla seen équipe bi ni mel macha allah baax na lool parce que yàlla ànd ngeen mhm. yàlla leen yàlla gën a yëkkati yàlla leen yàlla gën a yëkkati insha allah xol yi yëpp nekk benn loolu man maa leen koy ñaanal insha allah si kàttanu yàlla fu ñuy dégg yi nga xamante ñoo nekk si kaw ngir ñu dégg leen yeneen fu ko raw incha allah si kàttanu yàlla jërëjëf si kàttanu yàlla jërëjëf seen naal yi kon euh, Diop boo ñu mënee jëlal seen STV bi rek incha allah nga jëlal ñu ko muy tiset bi ma sol nga euh, mi nga xamante ni moo seet si woon tey euh, ak kéemtaan ak Aliou Khouma seet si woon tey seet na Aline Badara Diop mhm. ñun tamit di ko ñaanal yàlla may ko fanu gudd ak weer wax dëgg mhm. yàlla mu ngi fii rek station bi fii rek jàkkaarloo station bi si mbaaru Serigne Touba Malika Montagne numéro bi rek la ñuy fàttaliwaat après ñu tëj muy 76 534 45 73 wala 78 497 67 21 képp ku ko soxla rek incha incha allah soo ñëwee ci moom tawatal ko say mbir rek moom dana si jàppale bu baax a baax a baax ngeen ànd ci nag émission kéemtaan ak fii ci seen STV wala Sénégal streaming TV ak Aliou Khouma Thiam wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh